Ousmane Sonko maa ngi koy dégg bu baax wax dëgg yàlla gisaguma ko te maanaam toogaguñ maag moom comme ni ma toogee yow nii waaye ay discours am laay déglu. homme politique discours la. ay jaar jaaram itam ma di ko déglu. waaye homme politique parcours la. mu doy ma lool nag wax dëgg yàlla ku ma ku ma doy loola. tey yow en tant que imam nga gis ne ku set la. Mhm. nga gis ne ku jub la waaw. te aussi mi ngi yóotu loo xamante ni jàpp nañ ne mhm. que nit ñi ngi yaakaar ni li ñuy xeex dañ koy xeexal Ousmane Sonko. dañuy nax seen bopp. xeex pas pour ñun ñi mais pour suñu doom ak suñu sët loola ñu dugal ci xeex bi dàq nañu suñu liggéey ñoo ngi ñuy saaga tous les jours ñoo ngi pexe pour tëj ñu kaso mais Sénégal moo ñu ko jaral. Mhm. tey boo ko doon conseillé. Mhm. entourage am ak nekkinam yooyu ban yan yan conseil nga koy jox. Euh, am réew bu ñuy dem ba naan ña koy laaj bu mooyee nga koy jiite yaay yaay deuxième personnalité ci réew yu mel nii. nga xam ne wax dëgg yàlla ba tey ji loxol France daf fi ne ñoom ñoo liquidé woon Thomas Sankara ñoo liquidé woon Mamadou Dia. ñoo faagagaloon Thomas Sankara ñoo faagaloon Patrice Lumumba ñoo pexeloon Mamadou Dia. ñooñu doole googu ñu yor ba barki démb ñoo faagagal Xaddafi. ñoo liggéey woon ñoo liggéey woon ñoo liggéey woon. ñooñu soo bëggee jàmmarloog ñoom pour jël sa indépendance. il faut nga xeex tey boo foog nga xeex parce que ñooñu dañu bàyyee loolu. jaral na leen lu ne gis nañ fi ay président de république yu ñu fi boom gis nañ fi ay président de la yu ñu fomenté ay coup d'état parce que dañoo toog toog ba si yàgg ne dañoo bëgg reprendre suñu souveraineté. boo amee wéeruwaay ci kilifa diine yi mën ngaa sogg xeex boobu xam ne di nga daan. loolu koy réussir kenn rek la mooy ki nga xam ne ce peuple dafa tafu ci yow. soo amul assise populaire bu dëgër doo ko mës a réussir te nañ la fi jëlee te assise populaire boobu li la koy may. mooy ñi ngànk diine gi te ay millions de personnes di leen déglu ñu xam yow fan nga bëgg a jëmale looy def wax kook sa peuple ñu xam fan nga nekk fan nga bëgg jëm ak lan nga bëgg def bu boobaa boo leen woowee ci résistance lañ génn résister. Ousmane Sonko dafa mel ni man ci ni ma ko gisee euh, tey actuellement euh, patrimoine national la. Ousmane Sonko kooku patrimoine la waxuma la patrimoine pour le Sénégal de mais kooku patrimoine mondial la. comme daal ndaw la dem na ba réew mi yëpp ku ñu wax ñu ne Sonko de ku baax la ku ragal yàlla la fa mu teg tànkam foofa la